asalaamaaleykum asalaamaaleykum xanaa di leen laaj rek te xam naa ne ah xanaa laaj ayut ndax réew mi ku fi wax dëgg ku fi wax dëgg la ñu rey la wax dëgg wóor wax dëgg wóor kenn du wax dëgg ci réew mi waaye nag xanaa war nañoo laaj nag waaw Cheikh Cheikh Omar Diagne ndax la ñu yor moo ko moom Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne est-ce que déggoowul ak gouvernement bi avant muy jël décision Cheikh Omar Diagne tey bu yëkkati woon fay hôtel bu ba mat làmb poos génne cent millions teg ca taabal ja ah est-ce que coow li dina am tey dama ne Cheikh bu génnoon cent million joxe ko booleeg fay hôtel bi defal ko waa Tiwaawan jox leen xaalis ñoom it est-ce que coow li dina am te ki ma ci gën a yéem na ki ma ci gën a yéem mu doomu Abdou boobu Moustapha moo noon Ousmane Sonko dafa day wër di biiral moo noon Ousmane Sonko salafiste la moo fi noon Ousmane Sonko euh, moo tëddee Adji Sarr te lépp dara du ci dëgg ay fen képp la tey ku mel noonu boo ñu ko di xataraayu ah est-ce que yéen war ngeen koo déglu est-ce que yéen war ngeen koo déglu dama ne kan bàyyi Cheikh Omar Diagne wulis yi moom lañ dakkal wulis yi le président Diomaye dootu dem wulis yi conseil lim yëpp a ci d'accord wulis dematut fenn Cheikh Tidiane euh, Cheikh Cheikh Omar Diagne est victime des valise Cheikh Tidiane est victime des valises valises yi ñu joxee tut képp mu indi problème lii waaye bu joxoon wulu su fees dell fay hôtel bi tey manifestation marché bi dañ ci leen président Diomaye xam ne lépp waaw naan la xam ne lépp seen yi nag booy mu dakk la woon amatul ci kër yi la woon amatul ci diine yi la woon amatul ci kër tarixa yi la woon amatul li fi nekk Sénégalais yi ñoo ko bokk nun ñëpp te lépp day leer waaw rupture lañ wax jub jubal jubbanti waaw jub jubal jubbanti loolu man in ko dégg dara wut leen cee bett cheikh daal bu fekkee ne moom moom li muy joxe a ah bu ko joxee affaire ma waaye bu ko muul wuru koo joxe ah dama bëgg dal ngeen leeral ma est-ce que est-ce que bu fayoon hôtel bi tey joxe cent million gars yi daañu marché tey kon lépp xaalis képp la xaalis dong la. manifestation da ko def par rus da ko par kersew c'est une manifestation impopulaire am na ku sant Mbàkke Baara Dooli Mbàkke boobu moo fi tëddoon ak jabari jàmbur ci weeru koor jabari jàmbur lay sëy lam ko sëy ëppan mu at jëkkër ji daa cee daw sonn ci ba ma yeeg mu truandé ko xaalis teg ci keroog bu ñu ko àttee tribunal dañ koo tëj ci kaso bi presque deux ans lañ ko tëjoon mais trois mois la tëj dem jëli ko parce que ay mbokk ma ñaan Abdoulaye pour ñu bàyyi ko ku mel noonu war naa ci am manifestation di wax heure bi baar sàq la ko waroon na fekk baar sàq la ko waroon fekk yàbb leen Cheikh Omar Diagne danaa leen tegal nag konaa ngeen déglu ko déglu leen konaa am xel li mu wax lépp dëgg la xale bi nañ ko déglu lan boo ko déglu ko ziar kontaanee vive Cheikh Omar Diagne vive la vérité seen bi mu nekkulee ci nguur ngeen ko mënulee dara asuma ak instant bi naafiq yi toog leen naafiq yi mbubboo mag ñi toog leen bu ngeen amul fitu wax ak ñi saaga yàlla amoo leen fitu ñu nekk si biir tarixe yi naan diw yàlla la naan diw moo nekk yàlla après mu dem it euh, ay jinne ñu deewal ko mu ñëw nekkaat si demaat nekkaat yàlla ngeen xam ne day fen ñeme woo leen ko ko wax ngeen xam ne waxul dëgg ñeme woo leen ko ko wax Macky Sall ñu saaga yonant bi barki Dembo Ndiaye mu xëy fii dem na je suis Sarli ngeen yeeg seen diine yi yéen ay kilifa diine yi yéen a ŋànk diine ji fii yéen a fiy défendre Seydina Mohamed ñemewu leen pipe moo wax ko ko tey ngeen ne da ngeen di obligé Jomaay ak Sonko yéen c'est des soi-disant secularisés ne c'est parce que seen sant moo leen ko teg ngeen ne yéen ay nitu diine ngeen bëgg a fontoo nit ñi neen da ngeen di obligé pression parce que na na nañ nañ nañ dàq Cheikh Omar Diagne parce que dafa ne suñu mbindu mag ñi. war nañ ko mën a améliorer war nañ ko mën a améliorer waaw amélioration mooy yeesal amélioration mooy ñoŋal lu lu bon kenn du ko améliorer lu baax la ñuy améliorer dafa tagg mag ñi gërëm leen xam ne liggéey nañu lu baax waaye li ñu liggéey ku xool ni jamono ji doxee heure bii xam ne wuñ ci wala wuñ ko ni ñu ko war a jekkoo kon nañ ko améliorer ndax la mag ñi daan xeex ba mu jaral leen ñu leen di lor di leen exiler di leen toroxal. tey jii seen i njaboot ñoo nekk di ko def kon seen min jot nañu génnewaat mbindu mag ñi teg ko ci table bi amélioré ko ngir nit ñi déggin bi ñu ci war a am ñu am ko ci ngir Sénégal mën a baax ndax mag ñi diine ji lañ doon xeexal l'islam lañ doon xeexal ngir Sénégal baax lii la Cheikh Omar Diagne wax te lii mu wax mooy dëgg tu gis dérive yi nekk ci mag ñi ñu doon woote ñi nekk ci biir yoon yooyu ñoo koy ñooy wax lu yàlla bëggul di bokkaale yàlla di saaga yàlla di wax lu leen yàlla lu leen neex ñu koy wax ñeme woo leen koo teggi kon mbindu mag ñi jar na ñu génnaat ko teg ko ci table bi xam mag ñi lan moo taxoon ñu bind lan moo tax lan lañ bind li ñu bind est-ce que jotul ñu améliorer ko parce que lépp luñ doon xeex ci mbon luñ doon xeex ci bokkaale luñ doon xeex ci lu ñaaw tey jii ay njabootam ak ñi nga xam ñoo ngi mbubboo yoonam seen yoon yi ñoo ngi koy def li Cheikh Omar Diagne wax mooy dëgg su ngeen amul fitu joxoñ baaraam ñu weddi yàlla amoo leen fitu joxoñ baaraam ñuy bokkaale yàlla ñun bu ngeen amul kersa di défendre ñuy bokkaale yàlla du ñu am kersa défendre Cheikh Omar Diagne may ay naafiq naan waaw Cheikh Omar Diagne yéen nag da ngeen war a génn wax ko dëgg wax ko li bu ngeen waxee ñi bokkee yàlla dëgg rek ñun ñu wax Cheikh Omar Diagne dëgg su ngeen amee fitu jàkkaarloog ñi fi taxaw naan damay bëreeg yàlla ñi fi taxaw naan yàlla diw la dafa demoon dee dem indi keneen mu deewal koog nangam nangam ngeen xam seen i tur di leen sukkal di leen raamal su ngeen amul fitu wax ñooñu dëgg recadré ñooñu ñun duñu wax Cheikh Omar Diagne dara ci ay waxu 2019 man waxu amélioré bi laay wax ay waxu ay jumaa yi am na lii ak lii loolu duma ci wax parce que man kenn du ma manipuler 2019 ba mu ko ba mu ko dee wax ak at yi ci mujj la ngeen ko ci waroon wax wax ngeen ko saaga ngeen ko ci la ngeen ko waroon saaga weddi ngeen ko bu ngeen ko indiwee tey man ma ñàkk fay daba dee naan damay wax ci ay jumaa yi faramason du ci wax meex ñu may bëgg a pièce naan ma waa Kona ñun waxuñu waxu xa lii mer lool li leen butaagas seen xol bi mooy alalu réew mi ngeen doon pasar pasaree ci turu sëriñ di ko pasar pasaree ci turu màggale ki gàmm loolu la boobu lañ tëj moo tax ngeen di ngeen dara politiciens yi mbubboo diine yi bëgg a am politique àndoon ak Macky Sall di xeex askan wi ñuy rey askan wi ngeen tëj seen làmmiñ na ngeen tëjee woon seen làmmiñ di ko tëjee seen làmmiñ projet ñiy tànn pro ñiy wax nag di buruxlu naan ay projet bi xaw ma ay si yéen a xam fii ba mu mettee gisuñu woon kenn projet bi lañ gis ak Ousmane Sonko askan wi gisuñu woon kenn fii ñi fi mbubboo mag ñi yëpp kenn gisu leen woon dañoo lemoon ba mu roo toog ci tey kenn duñu rey dañoo jël suñu indépendance dimbali leen ñu bi Cheikh Omar Diagne di xeex bañ koy toroxal di ko tëj ci kaso bi seen mag ñooñu a ñi fi doon mag ñooñu ngeen yaakaar dañoo lem ba mu ron tey duñ leen ko jëndee mukk may leen ñu jàmm vive Cheikh Omar Diagne vive la asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa ñu dellu di leen nuyu te di leen ziyaare bu baax a baax a baax day faral di def bu nu waxtaanee ba pare dafa am ñuy tontu yéen ñu ay commentaire ñoom commentaire ñu ci ràññee yoo xam day am solo day am solo seeni borom sant ñu ko waaye nun noo koy dugal noo koy dugal ndax bëgg ñëpp jot ci rek lii sëñ bi wax li sëñ bi wax nañ ko bokk déglu lépp jëm ci charia lépp jëm ci charia moo xam ne euh, ci lislaam la bokk nun Sénégal ñu teg ko fële waaw nanguñ koo tudd nanguñ ko waxtaan nanguñ cee boole waaw te nangu màggal tam xarit te nangu ay ziyaare nangu ay sikkar lépp ñu nangu ko waaye charia bi nga xam ne ci lépp la bokk lu mu bokkul dara du sotti senegal jël ko sànni ko ca àll ba lii ci imam bi wax nañ ko bokk déglu day lu am solo moo tax ñu publier ko waaye moom sant ñu sax ñu publier ko waaye kàddu bu jibee war a jariñu askan yi nañ ko génn teg ko ci penc mu jëriñ ñëpp looloo tax ñu teg ko te di ko jéggul nag di ko jéggalu xëy na jombul bëggul ko ko teg waaye nag li wax dafa am solo foog ma génne ko ñëpp déggandoo ko waaw kon nag bismillah ñu déglu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, jadeen yi di leen nuyu bu baax a baax di leen ndokkeel itam waaye di leen jëfal ci seen taxawaay ah, gën ñoo dëggante lool waaye dama nekk ci dañoo nekk ci nawet ma nekk ci tool yi ah, daanaka connexion bi demeewul noonu ak itam jot gi itam du ko demee waaye dama seetaan sa benn vidéo mu fekk ma ci mu dajjel ak li nga xam ne ci la ma fekk ci guddi yi ma di ci waxtaan ak ñu bari te mooy yàqu bi nga xam ne ni am na ci réew mi ak yàqu bi nga xam ne ni am na ci lenn ci nit ñi nga xam ne dem nañ ba nga xam ne ni bakkan dañ ko def rek comme xottu gerte nga xam ne nu leen neex rek reyee fu mu leen neex reyee ku leen neex rey jël àll jàmbur ci nu la neexee te dara du la ci fekk suñ demee bu réew àgg foofu ci réew moo xam ne dañoo wax ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom yépp ay jullit lañ wax dëgg yàlla bu ñu nee ba tollu foofu war nañoo taxaw ñu seetaat suñ bopp seetaat suñ bopp bi nag dara rawat ci delluwaat ci liñ jàng ndëgam ay jullit lañ delloowaat ci li ñu sant te mooy xatt ci xisaas boo demee ci surtu maahida ca aaya ñeen fukk ak ñett ba jàpp aaya ñeent fukk ak juróom-ñett wala juróom-ñeent alquran wax na fa ñu lu leera leera leera leera leer ci nañ lañu war a xattewoo te itam wax na fa it ne képp koo xam ne ne ca ca biir diggal moom la wax na fa ne képp koo xam ne xattewoo ci yàlla santaane yow tooñkat nga walla yow naafiq nga walla yow faasix nga ku génn topp nga ma gis ne li ñuy dal nii ñun jamono ji ñu toll li ñuy dal nii lépp li ñu ko teg mooy ñàkk xattewoo ci xatte yàlla yi te ñaa ngi xoote ay gàmmu nit ñi dafa dem nit ñaa ngi xoote ay màggal nit ñi di dem nit ñaa ngi xoote ay siyaar nit ñi di dem waxtu wu nekk ñu ngi xoote ci ay ay ay yu diine waaye doo mës a dégg benn message boo xam ne jàll na ci ñuy ñuy jéem a xeex ci xattawér ci yàlla xattawu ci lu yàlla santaane te ñun ñëpp buñ daje woon jullit yi yëpp buñ daje waxtaan tànn ay borom xam-xam ñu maandu ñu dooleel leen ñu xattawu ci li yàlla bëgg lu mën a nekk la ndax liñ jàpp ne man li ma jàpp man su ma xam-xam nag bëriwut aw ma xam-xam xaw ma mbooloo xaw ma daraja waaye dañuy wax ne laïcité li ñu fi nekk du laïcité caaxaan la ak nifaax waaye laïcité bu yonent bi moo ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam ndax chariatu yi ñoo mën a war a fekk fa ay nit ñoo xam ne duñ jullit waaye day dañu leen jàpp dañu yonent bi dafa wax ne wala bokk dañuy wax ne nañ képp koo xam ne xat tooñ nga nañ la ci sa diina bu fekkee ne xàtte wu la ci màndu ñu dikk xàtte la ci sariatu islamiyya du tere mënuñ ko doxal sariya du tooñ kenn diina du tooñ kenn ci degré la xàtte te bu ñu xàtte woon ci bu ñu dellu xàtte ci li yàlla santaane wallahi suñu réew mi dana ñëw sàcc du fi jóg dëgg la ndax alquran tudd na ko fi la fekk rey gi du fi jóg fi la ko fekk waaye dana wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax coono bu ñu yóbbër bu ñu dara ñoo te teg suñu bopp ñi ñuy wax ne ñooy kilifa yi diine waxaluñ diine defaluñ diine loolu mooy dëgg ku ko bëgg ku ko ñemee wax ko ak ku ko wax ku ko ragal moo xem waaye loolu mooy dëgg seen bopp lañ ci nekk ak défendre seen kër yi seen intérêt yi seen seen maam yi waaye amul ci kenn ku waxal diine wala ko défendre diine loolu mooy dëgg di moo su fekkonte ne dañuy xoot seen dañuy ñëw ñu wax ci kaw ne nguur gi dañoo bëgg ñu dimbali ñu xàttewoo ci li yàlla santaane ñun jullit yi unanimité ñu d'accord ci wallahi alazim fi nekk nii danañ ko def ñu seet ay borom xam-xam ñu tëju waxtaan seet te yàlla yi ñu doxal ko te doxal ko ci doxalin yu màndu seet borom xam-xam yu màndu ñu dooleel leen bàyyi la ñu xatte ci yàlla bëgg lii mooy dëgg lii mooy dëgg fan yii yëpp ci loolu lay xalaat nan lañ mën a nekkee ay jullit quatre-vingt-quinze pour cent ñi ne ay musulman lañ te mënuñoo xattewu ci li yàlla bëgg njaaloo gi di gën a bari rey gi di gën a bari sàcc gi di di gën a bari yàq gi di gën a bari lu ñu koy lu ñu dar rek lu mooy lu mooy lu ñu dar rek lu yànka xàttewu ci li yàlla xàtte moo ñu ko teg nañ leen delluwaat ci li yàlla bëgg xàttewu ci xàtte yàlla yi ay borom xam-xam yu maandu ñu dooleel leen ñu xàttewul ci yàlla bëgg nañ ko def nañ ci wax ñi nga xam ne yàlla sédd na leen xam sédd leen daraja sédd leen maqaama nañ ci wax yéen ñi nga xam ne yàlla sédd na leen ngeen am béréb bu waxukaay wax leen ci su jëriñee baax su jëriñu pëncam yàlla da wax ne ñun yàlla waxoon nañ waaw euh, ni ko imam Ndour waxe noon dong la noonu dong ñu bëri nag bëgg nañoo wax bëgg nañoo wax waaye réewum kenn du fi wax sa gémmiñ sa boo ko ubbee ubbiwaat ko sa waa tey la waaye lii mu wax mooy dëgg ay juddit lañ nangu nañ gàmmu nangu nañ waxtu yu juróom nongu nañ penku nangu nañ soow nangu doon màggal nangu gàmmo nangu canc aku siyaar dama ne war ngeen mën a nangu nag war ngeen mën a nangu charia war ngeen nangu charia charia ko ci la bokk de yii ñu def ay caaxaan dong la waaw ak jubadi keppata keppata nga ta nga ba fa ragal charia yàlla du teg mukk lu mu nit waaw charia bi ni ngeen nangoo bonk boog soowu nangoo ko seen sëriñ si nangoo leen ko charia te assemblée nationale yi du député yu doy yu toog di déglu ay imam ay imam yi toog di déglu lu jara wote ñu wote bu jërta wote wala ñu wote fi loo xam ne dëppoo ak diine imam yi sànni ko ca àll ba jànki tubaab bi xamuñu dara jànguñu xamuñu waaw ay intérêt la ñuy xool moo tax assemblée lañ fi benn quota quota imam yoo xam ne dañuy toog di déglu bu noppee ñoom ñooy clôture am droit de veto réew mu leen fi dugal lu bon lànk leen képp ku fi gàmmo làmbal sa poos wala nga woo say taal bi nga def la ngay def gouvernement bi joxe tut ñaari dërëm alal ji réew mi ko moom te am na fu mu xaj dama ne ku bëgg sikkar wala nga bëgg a gàmm làmbal sa poos wala nga dajale say taalibe la woon woon ni na la woon amutut rupture leen rupture lépp nag jub ak jubal ak jubbanti jub ak jubal ak jubbanti waaw Cheikh Oumar Diagne bu làmboon poosam joxe ba pare fay hôtel bi coow li du am coow doo am mukk xamul leen tax mu def ko ci gouvernement la nekk mën naa am gouvernement yi décidé ko sant ko ko mu def ko ngeen bëgg ko toroxal di ko saaga ak di ko tooñ yii bàyyi leen ko as gor day liggéey te bàyyi toppe ni ngi jéggalu baax nag di jéggalu baax te ñaan jàmm ci réew mi jaa ngeen jëf